waaw asalaamaaleykum Sénégal asalaamaaleykum mbokk amateurs yi. le vingt 22 mai. arène nationale. man Boy Niang le fils de De Gaulle Thiapathioly yi maa leen di jox rendez-vous. Mama Lamine Garga 2 drapeau Abdou Karim Sall. ci combat Kajoor production muy Ibrahima moo ko tëgg muy Kajoor production muy combat bu rëy combat espoir. maa ngi ci woo soppe di ci woo am di jàmm yëpp. ñu ngi leen jox rendez-vous foofu man Boy Niang dinaa fa ñëw incha allah di fa sama fans yi ak sama am di jàmm yi bu jeexee jeex na dëggal neex. di leen nag am seen dina dugg si ak culture séeréer dina maye tamit si culture Joola mbokk yu suivre Lutte TV point com ñu ngi leen nuyu bu baax a baax di leen ziare comme ni ñu leen ko waxee sànq rek combat bi nga xamante taxawal nañ ko mu war a dox ci diggante Papa Sow ak Siteu jàmbaar production taxawal ko manager Papa Sow ngi nuy di Cheikh Ndiaye tamit ma nuyu la bàyyi la nga nuyu mbokk internet yëpp ñu waxtaanee li nga xamante ne tey moom ngeen xaatim li amateur yi doon xaar le 5 décembre 2021 mu yàq woon ngeen ñu waral ko si ñëwaat maa ngi bu baax a baax di la ziar. asalaamaaleykum mbooloo mi maa ngi nuyu ñëpp. di leen sant di leen gërëm di leen wax la nag finalement wax dëgg yàlla li ñu doon xaar jot na combat bi taxaw na Papa Sow Siteu waaw léegi nag wax dëgg yàlla ñoo commencé ñun sax mosuñoo arrêté euh, kii bi entraînement yi waaw léegi daal ñoo ngi ci daal waaw ñoo ngi ci waaj dañu gis ne combat bi ñu ko doon démarché dañu bëri promoteur yi dañ ko songandoo woon la moo taxoon mu waaw loolu moo loolu moo gënoon a tax mu yeex promoteur yi ko songandoo woon parce que bon li ñu naan vente aux enchères loolu daal lañ loolu daal lañ doon xalaat waaw dañ doon euh, plusieurs francs daal lañ doon euh, négocier waaw mais nag finalement jàmbaar production moo moo mujj gagné euh, jackpot bi. ba finalement moo ko moo koy jël en kii en compte waaw. jàmbaar def ba ba convaincre. waaw jàmbaar moom wax dëgg yàlla li ñu def ba convaincre ma ah comme li ñu li ñu fay rek li ñu prix yi ñuy fay nii loolu moom wax dëgg yàlla moo ma gën a satisfaire pour pour ma pour ma jël combat bi. maanaam ñi ko bëggoon ñëpp jàmbaar ñu ñëw romb leen moo tax ngeen. waaw waaw parce que ñi ko bëggoon ñëpp. jàmbaar dañoo ñëw romb leen waaw ñu finalement ñu ñu ñu ne léegi ginnaaw jàmbaaru nag egsi na ci euh, barème bi léegi il faut ñu jël ñu jël engagement bi ak moom waaw. waroon ngeen bëre le cinq décembre lu ko jiitu combat bi defoon na deux ans presque trois ans bëre woo leen ko yàlla dogal na ngeen war koo si waat contrat bi ci ban année lañ leen wax ni moom la war a jeex maanaam ban saison lañ leen wax moom ngeen ko war a bëre saison bi ñu nekk wala lañ leen wax contrat bi du génn 2022. waaw léegi daal ñun ñoo ngi xalaat fi mu nekk nii ci mille deux bi 2022 wala wala euh, euh, ci euh, début 2023 waaw mais nag mille 2022 bi daal lañ ci gën a xalaat daal waaw. sa pare na pour bëri ci 2022. waaw sa mbër moom wax dëgg yàlla. physiquement pare mën na bëri ci. physiquement pare na waaw physiquement. pare na ci deux mille bëree bëree ci deux mille vingt deux bi mhm. waaw. combat bi la laaj. ah combat bi day moom li mu laaj dafa dafa bari parce que fi mu nekk nii li ñu xalaat bon dinañ def surtout entraînement nag waaw entraînement moom moom moom la combat bi gën a gën a gën a gën gën a laaj waaw. enjeu combat bi lan la da ngeen a bëri woon da ngeen waroon a nga la ko yàqoon. bii ba waaw léegi combat bi li ko yàqoon euh, ñëpp xam nañ ko euh, waa ña ñëwoon stade ñëpp xam nañu ne combat bi li ko yàqoon bon xëy na duma jaaraat ci loolu sax. foog nga jaaraat ci parce que làmb ji nag xam woote wu ñu violence mais bëgg nañ tamit làmb boo xamante ne gars yi dañ koy jaay mu saf-saf. waaw baax na fi mu nekk nii loolu moom li li ñu li ñu ci xalaat mooy. bon dinañ ko bind bëri ci fair play waaw surtout fair play surtout léegi nag dinañ xama xalaat ne léegi daal làmb ji moom il faut mu am bëre am surtout dina am xeex dina am maanaam lépp lu war ci ci biir làmb ji daal dina dina dina am incha allah. yéen xanaa da ngeen ba tegoo leen ba ba xalaatuloo leen woon wala bëggoo leen woon beneen adversaire bu dul Siteu non non non non. ngeen war a régler seen diggante. waaw léegi léegi xam nga xam nga boo boo boo waree vider benn contentieux il faut nga vider ko quoi waaw parce que fi mu nekk nii suñu combat ak Siteu normalement war na mën a war na mën a nu mu comme léegi ni ñu li ñu li ni ñu gisee woon combat bi ci ci début bi bi mu yàqoo noonu bon stade bi wax dëgg yàlla bon euh, liñ ci séntu woon am na ci. waaw parce que mm, léegi bi ñu demee ba ba nga xam ne nii combat bi yàqu na nag ñëpp da leen defat surprise daal waaw loolu moom euh, mais nag combat bi moom il faut ñu ñu ñu ñu euh, ñu régler contentieux bi daal ñoo si ta waaw waaw. Hmm. waaw tamit gis nañ keroog def na stade bi lu doy waar bi baax lan lañ mën a xaar tey. ci sa côté yow ñu gis tey ñi ànd ak Papa fës comme ni ñuy gisee ñi ànd ak Siteu fës wala boog ñi ànd ak bu làmb amee adversaire ku ci nekk ni ngay gisee say adversaire say say supporter morom di fës bi part lan lañ mën a xaar ci yéen. waaw mobilisation bu doy rek léegi ñun ñun fa dëgg yàlla li ñi bëree bëree bëri ñëwuñu woon stade sax am na ñu desoon ñu bëree bëri ñëwuñu woon stade. mais nag fi mu ne nii il faut dañuy mobiliser waat ñëpp supporter fans club kii fans club yeeg supporter yeeg amateur yeeg ñëpp la ñuy support parce que xam nga papa moom def di mbërëm amateur waaw surtout léegi nag boole kook nag unité 1 ba 26 ak yeneen gox yi Fass Gueule Tapée Médina ñoo ñëpp dañuy dañuy supporteru Papa Sow waaw moo tax il faut ñu mobiliser waat nit ñi pour ñu ñëw. mas nga bëri mbër Max Mbargane mas nga indi mbër muy mbër. waaw indi mbër indi naa euh, mu bëree daanu ma indiwaat mbër mu bëree daan. kon miin nga per. waaw xamante nañ waaw. dafa garaaw de. non. mais nag jaalo mos ñëw ndax du xamante nañu maa moom. xamante nañu. xam nga ko wala moo moom moo moo xam moom. xam na ma bu baax a baax a baax a baax waaw. Ah, man kay li ma koy wax mooy. ah li ma defoon li ma defoon li ma def li ma li ma li ma ko daan def daal toujours maa ngi maa ngi xalaat pour def ko loolu. waaw incha allah. kontaan naa ci waaw jërëjëf. waaw asalaamaaleykum Sénégal asalaamaaleykum mbokk amateurs yi. le 22. mais arène nationale. man Boy Niang la fils de De Gaulle maa leen di jox rendez-vous. Mama Lamine Garga 2 drapeau Abdou Karim Sall. ci combat Kajoor production muy Ibrahima moo ko tëgg muy Kajoor production muy combat bu rëy combat espoir. maa ngi ci woo soppe yi di ci woo am di jàmm yëpp. ñu ngi leen jox rendez-vous foofu man Boy Niang dinaa fa ñëw incha allah di fa woo sama fans yi ak sama am di jàmm yi bu jeexee rek jeex na dëggal neexul. di leen nag am seen dina dugg si ak culture séeréer dina maye tamit ici culture